ndaanaan laa ñaari yoon kon boo jaar booba laa mëne foo jaar fafa laa mëne dama mën ci bii boor mën bee boor mën ci yi ak ci yëley boor bàyyi fàtt njaay nu ñoom tuuna rëy ma juub waa na roy ma saay maa baaxi jeeg ñii ma yor siy jeeg jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontante ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne euh, ñuy ñëw ci wasaare làmb du ma ci wéet nag benn yoon ndax dama ciy ànd ak ki nga xamante ni mooy Ousin euh, ak sama papa père Birahim euh, ginnaaw loolu damay bàyyi Ousin mu nuyoo rek su ko defee père nuyoo gën a mën a dugg ci waxtaan bi Ousin maa ngi lay bu baax. baa maa ngi lay fay la ziar baax a baax di nuyu suñu papa père Birahim Ndiaye di ko wax ne. ñu di ko jox wàccuwaayam di ko wax ne xam naa namoon ngeen ñu mel namoon nañ leen. ba tax na man nag damaa xaw a na mu làmb tuuti ñu doon ni gannaaw li ñuy teg teg nañ ko ba noppi làmb daal dama ko nangu di la bàyyi nga nuyu père bi bàyyi ko mu ñu doog a wéy waxtaan bi bàyyi ji. waaw Ouzin am na solo sama père sama xarit. père maa lay nuyu. waaw jërëjëf maa ngi auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. Hmm. rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu bokki internet yi nga xam ne ñu ngi safoo site bi tudd. wasaare làmb maa ngi leen di bëggee di leen këram di leen sant di di ñaan sama kàddu yàlla na leen fekk ci jàmm yàlla defal leen sutura mujj gu rafet gudd fan gu ànd ak wér ak wérle bi barakatu rasulillah jàngoro ji nekk lëmbi réew mi nga xam ne mooy lëmbi àddina bi yëpp yàlla nañ ko yàlla teggil yàlla nañ ko yàlla teggil te eh, mosal ñu ci musiba ak ndog lépp waaw mm. ah di jël nuyoo bi nag di ko teex Baye Jili Ousaye eh, dégg nga Kaagu Bachir mm. dégg nga Adama Mm. ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu ak xale yi ñoom tupp xale yi fi nekkul. Mm. maa ngi nuyu waa sud bi yëpp daal. Mm. di kontaan ci yéen lool trop di kontaan it toog yow di waxtaan <laughs> waaw. mais père dafa léegi da ngaa mujjee maîtriser gars xam leen benn fan benn waaw xam nga yàgg mooy wane lu nekk. Mm-hmm. yàgg ba ma fi door a ñëw mënuma tudd turu kenn. waaye bu fi defee benn weer ñaari weer commencé bëgg a miin. Mm-hmm. bay dugg ñetteelu weer bi nii commencé miinante ak yéen. Eh, ngeen nekk xale yu baax yu yaru nag wax dëgg yàlla yu neex a nekkal. Hmm. parce que mag nekk ak gone yombul. parce que gone bu yaroo nga nekk moom yomb na waaye mag bu yara di ko it nekk nekk gone gone du ko jox cër. te gis naa ne fii gis naa fi jàmm kafre hmm. yéen ñëpp seen biir saytante tooñante toujours animé lu animé kër gi daal. Hmm. maanaam ci kaf ak ko teg. te loolu comme nit ak ay doomu bàjjam ngeen nekk loolu mu neex ma loolu wax dëgg yàlla. looloo tax léegi maa ngi miin si nag. Mm-hmm. léegi nag xëy na jigéen ñi laa miinagul ku dul toppi daal mm-hmm. ak femme bu xale bi fi nekkoon te nekkatu fi léegi Fatou Fatima waaw waaye yi ci des borom café gi nag waruma ko fàtte sama doom jooju may defaral kafe ah, ah. ah. benn wala Marème Sène waaw mooy ki may defaral café gi rek waaw kooku it maa ngi koy gërëm di ko sant ko nuyu suñu doom yooyu mais góor ñi daal maa ngi maîtriser ñëpp daal yàgg daal li ma la rek yàgg mooy taxu mi ne wallaay dëgg la jërëjëf dëgg la mbokk yi may kontaanaat bu baax a baax a baax di bokk ak Père Birahim Ndiaye li nga xamante ni mooy plateau bi euh, ni ma ko waxee rek boo arrièroon ñaari at ci ginnaaw ne ma bis dina ñëw nga bokk ak Père Birahim Ndiaye euh, plateau di def émission dama naan la ah déedéet loolu moom góomu ni mun naa ne waaye ndeke yàlla suñu borom mun na lu ne euh, mu mm. kontaan bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla suñu borom guddal fanam lool te mu ànd ak wér ba bépp naal boo xamante ni fas yéene na ko suñu borom kàttanal ko dooleel ko ba mu defee ko ni mu ko bëggee ñu ànd ceeg moom. Hmm. Euh, Pierre di la jaajëfal bu baax a baax a baax. Euh, tey nag ponk bi ma bëgg ñu indi ko mooy dañu bëgg ñu waxtaanee ci làmb gannaaw boo doonee mbër ba noppi euh, pour nga bëree dangay dugg ci écrit écrit boobu ngay nekk dafa am ay encadrement ñoo xamante ni ñoo lay encadré ñooñu daanaka ñooy kilifa ci écurie ba comme kër gi nga dëkk rek ni mu amee kilifa kilifa bi nga xamante ni benn kàddu bi moom moo ko yor moo naa la defal lii bàyyi lii jàppal li teel nii écurie tamit noonu la mel ndax kër la kër la boo xamante ni lu baree baree bari dañ la koy jàngal euh, du ñàkk ngeen yàgg a dégg ni écurie Père Birahim Ndiaye boo fa ñëwee père dalay tere lii dalay def loo lii dalay obligé ngay def lii boo deful lii ci écrit bi lu mu nangu dalay bàyyi nga dem mais am na leneen loo xamante ni gis nañ ko père euh, loolu tey laa bëggoon ñu waxtaanee ko importance su écrit ban njariñ la am ci mbër. waaw importance su écrit xam nga écrit hmm. lu bees la. bu hmm. yàggul lool ko hmm. benn dëkk moo daan am mbër. boo amee kenn fa daan doon mbër. soo amee combat ay copain ay copain yi fooyee bëre daal di ngemu ànd ak moom di ko gunge làmb ja mais champion bi kenn la daan doon. Mhm. waaw kenn rek la daan doon. léegi nag làmb dafa jékki-jékki ba njariñ li feeñ. dégg nga xéewal tuuru ci nag léegi ñëpp bëgg a doon mbër. Mhm. ñi mat mbër ak ñi matul mbër ak ñëpp daal kenn ku ne daal bëgg ngaa doon mbër léegi. Mhm. mais mbër benn nit la daan doon boo xam ne ci quartier bi danga nga naan par exemple léegi nga dem tey Grand Dakar ñu ne Boy Bambara fa nekk nga dem Fass ñu ne Mbaye Guèye fa nekk. dégg ak maam góor gi Ndiaye parce que maam gi moo mag carrière Mbaye Guèye. mbër bu daan jeexal day am kuy si. dëgg remplaçant daam kii di jeexal kii di yëgsi mhm. parce que noonu la daan demee quoi mhm. nga dem Kër Massar ñu ne booy banqaasa fa ne nga dem ñàgg ñu ne booy ñàgg nga fa mhm. mooy bu génnee keneen ñëw addina noonu moom la daan amee ko écrit nag léegi bi mu commencé xew nag dégg nga ñu tudde ko écrit xam nga fas ko xam waaw mais nag ñu tudde ko jëf maanaam mbooloo mu daje la comme ni groupe façon da ñu ànde ko nag bi ñu ko àndee nag léegi nag ki jiitu ñu soq ñëpp nga doon mbër mais nag ci loolu ñu ne nag ah léegi nag ñu commencé ko tubaabisé quoi. Mhm. comme tubaabisé bi mooy maanaam tubaabel ko. Mhm. def assemblée générale fal bureau. dégg daal ne kii mooy président bi kii mooy secrétaire général kii mooy trésorier bi. Mhm. kii mooy yor entraîneur bi kii mooy adjoint kii mooy yor. yooyu yëpp nag mu commencé cee feeñ. léegi bi mu ko ci commencé feeñ nag léegi écrit bi nag comme bi commencé am tur. ñu dem ba ci biir ñu ne ah école de dem comme demee noonu. dégg nga léegi waaye école de lutte xale yu ndaw yi comme bëgg nañu bëre te booba xale yu ndaw daaw ñu ko foye mm. da nga ko daan seen kañ rek bu leer gi neexee nii mm. rek xale yi gën di fecc penc loolu la daan def mais comme léegi amatul ñeen nañ def école de lutte école de lutte xale yu ndaw yi nga xam ne buñ jàngee ba wàcc ñëw di entraîner bëri mm-hmm. ñii football ba lañ koy def ñii football leen neex ñii judo leen neex ñii karaté leen neex ñii boxe leen neex mm-hmm. ku nekk dem ci la nga dugg mm-hmm. ci biir loolu nag ci léegi rek daal ñu commencé nag di ànd am mbëru mag bi nag moo daan jiite moo daan dox lépp Hmm. lépp caa ci lu mu sant loolu ja lu mu tere ñu bàyyi. Hmm. mais comme am nañu ay entraîneur ak yu mel noonu nag léegi mbër mi mooy chef mooy wax lu mu wax loolu lu mu waxul ko loolu. Hmm. te loolu doxalul mbooloo. la am ah. solo Ouzin dañuy dañuy sot sotoo père. xam naa ne tey moom faaw baag yow ñu séq ko. noonu la ju ah, gën a xamaat écrit bi xale yi fa nekk. Eh, taxawaay yi ñuy am ak yu mel noonu mais père dafa am leneen. loo xamante ni dama koy gis ci écrit. Euh, importance su écrit ak école de lutte lan mooy seen différence. écrit ak ah. de lutte. écrit mooy tur bi njëkk a génn. mais école de lutte wax naa la école mooy xale yu ndaw yi bëgg bëre. Hmm. di ko bëgg di foye dégg nga te footballé wuñu karaté wuñu boxe wuñu xam nga comme ni école football amee. Hmm. xale yi bëgg football dañuy dem école football. Hmm. ñi bëgg karaté dañuy dem école école karaté bi. ñi dem judo ñeneen ñi dem mais xale yu ndaw yi nga xam ne ñu nag xale lañ te bëgg bëri nag loolu la boo doon formé leen nag formé leen ba âge ñu nekk xale di jàng bëre. nga nekk mag nag mu mën a bëri nag xam xam di leen jàngal te jàngal jàngal mi nekkul ci jikko rek mhm. nekkul ci bëri rek da nga leen ci yar ak ci teggin ak nu ñuy waxee nu ñuy defee ak nu ñuy dëkk ak ak civilisation nan la ñuy sol yëre nan la ñuy toppatoo seen bopp ba mhm. nekk nit ku yiw nekk ku baax nekk ku yaru Hmm. parce que nit lu muy yëngu day fekk mu am ci yar ak teggin ak base bu dëgër base bu dëgër bi mooy nga fekk hmm. nit ku yaru ku amee hmm. teggin nekk nit ku ku dégg si et puis toll nga ci jàng nga nangoo jàng boo xëy ja bu jàng jotee nga dem jàng soo wàccee ñëw entraînement soor bi jotee nga nga dem entraîné ji loolu moo daal loolu école yi maanaam nga fooye waale ko daal di ko màggale noonu moo doon yor waaye loolu ba ma ko bindee CNG ne nañuy compétir bu grand combat amatee nañuy compétir xale yi jël ñaari école de lutte dégg nga boole leen. Mm-hmm. su ko defee ñu bëri trois heures ba ba deux ba cinq heures ñu arrete mm-hmm. mais loolu boo ko waxee Alioune daa d' accord nañu ci d' accord ci parce que da xaalis du ci am mais xale bi mm-hmm. ngeen boo géejawaay. ñii ngeen boo parcelle ñii ngeen boo ta ñii ngeen boo dégg ku leen di indi fu ñu fayee mbër cinquante millions wala cent millions. war nañ cee jël benn cinq cent mille cinq cent mille séddale ko xale yu ndaw yi. mais loolu tax ñu àcc affaire ba te joxewoon na plan boobu. mais dañu wutale ñu daal foofu la ñu wutee bii mag a koy def bii xale koy def ci mm. gàttal mm. comme nag ma laaj question bi lu leen wutale mm. bii mag a koy def bii xale koy def dëgg la école bi pour les xale la xale yi màggale ko waaw na solo damay ñëw ci ci fi mu daanelee man ci biir écrit ci boppam laay ñëw parce que dama gis euh, làmb mbër yu mag yi comme ni ñu koy waxee ñi nga xam te ñu ci fay ko vingt millions jëm kaw mm-hmm. ñoo ciy tedd mm-hmm. te li boot ci gannaaw moo ëpp loolu mm-hmm. te dama gis écurie yi amul organisation su ma ne amul organisation mooy tey su ma ñëwee ci mën naa jox exemple ci yow mi fi toog Père Birahim moo yor écurie bi yow ay xale xale yi ñëw ci yow amaana ñu fenn fii wala amuñu biir niveau bi mhm. yaa ngi ciy jàpp yàlla di ci jàpp ba ñu mhm. fayeeku yenn cachet yi mhm. xale yi topp seen gannaaw amuñu métier wala seen métier demewu noonu te la ñu soxla ci contact wala soxla ko ci la leen jàppale ci làmb xale yi dañ leen koy jox ba mu mat te au revenu amul ñoom dara loo xamante ni dina jóge ci ñoom ci ci ci boog li ma xam ñu ci bari amul dara luy jóge ci ñoom di ñëwaat ci écurie bi ah, te ñoom bu ñu demee ci bo bos box ko waaw box box ah, hmm. dañuy fay hmm. salle musculation dañuy fay ñu demee sëriñ dañuy fay mais ci biir équipe bi amul lenn loo xamante ne day jógee ci ñoom di jëm ci di jëm ci équipe bi est-ce que loolu dina doxal équipe bi ak mag mi nga xamante ne day bàyyi léppam ñëw di la taxaw bu ci dul gis boppam est-ce que tamit dina jaadu est-ce que tamit dina dina nekk loo xamante ne day doxal làmb mais jërëjëf Ousseyn laaj nga question bu pertinente kett bu am njëriñ hmm. loolu tax na école yi mënta dem école yi mënta dem école bi euh, maanaam kii jàng du fay leader xale leader bi ñëw ci école bi hmm. amul lu muy fay hmm. su gaañoo yow yaay am problème hmm. yaa koy jéem yow fu mu faju joo dégg amoo kenn ku la jàppale écrit CNG bi jàppalewul ci dërëm maire maire ba maire ba nga nekk maire ba jàppalewul ci dërëm xale bi du fay dërëm mais kooku rek yow mi koy sonn ci moom yaa am soxol di ko jàppale rek waaye amu ci amoo ci amoo ci benn rendement benn rendement amuloo ko ci moo tax école yi dañ koo doon structuré buñ ko structuré ba mu tegu ci yoon xale bi am lu muy fay boo liggéey si biir yow ci man di ko mën teg yoon. soo gisee ma laaj la loolu. waaw mu gis kii di Père Mbaye Guèye. Hmm. gis ko ci Papa Balla Gaye. Hmm. Hmm. dañoo yor ay xale yoo xamante ne dañuy fayeeku maanaam bari ci làmb. di fayeeku xaalis bu bari ci làmb te ñoom ku ci tabat ku nekk dañ lay ketal. wala ministre jël la en charge te du yoon. ñooñu war nañoo war nañoo delloo buum ca kii ba ca ca. buum ca booy booy ah, waaw buum ca booy booy. war nañoo mën a jàppale ñi nga xamante ne ñoo leen def tey. ñu doon. mais rafetul. nga yor mag mu lay tàggat di la mm-hmm. jàppale. Mm-hmm. ba nga toll benn niveau bi. Mm-hmm. après bu feebaree dañuy dem di ko ketal wala dem di ko ñaanal. dafa lu ñu ko ci làmb. ba tax na mag mu ci doon mu ci nekk mag say waa kër dañ naan la papa kaay nga toog kaay nga toog ndax moom moo nga bàyyi papam ci kër comme ki lay tàggat di la jàppale. di def lépp ci yow. kooku yaakaar naa war na war nga koo mën a taxaw wala kooku war ngeen koo mën a taxaw ba bu tawatee wala bu amee lu koy métti sax nit ñi duñ ko yëg Père Birahim Ndiaye. waaw mais xam nga loolu mooy li ma la wax rek sànq rek ma laay répété at mooy structure bi ni ñu ko war a teg dañ ko ne mm-hmm. bu fekkee xëy na CNG bu bees bi bu ñëwee dina seet li nga xam ne écologie noonu la war a dundee maanaam ñu bind ko ci règlement intérieur bu baax boo xam ne école yi noonu la ñuy dundee yi noonu la ñuy dundee yaa ngi dégg loolu bu boobaa école yi di mën naa suqaliku mais école yi suqali du suqaliku parce que amul taala teguñu ko fenn amul base amul dara Mm-hmm. benn te am na ñu ci rax ñoo xam ne ñi ñoo ngay jàngale bëri te mënuñoo bëri ñoo ngay jàngale chef que maanaam euh, caractère ba ñu war a am pour mën a former doomu aadama teg ko ci yoon teg ko ci yar ak teggi nag civilisation teg ko ci mu nekk nit ko am xam-xam ko yaru ko amit teggi amuñu ko mm-hmm. làmb xew rek ñu bi seen mbooloo te former seen équipe wut seen i këyit ñooñu tamit bu ñu yoree gone mënuñu ci dara mm-hmm. parce que gone mën ngaa séqa moom taraa taraanga boo xam ne bi ëllëg si biir bu amee taraanga du la fàtte mukk ci àddina waaye am na ne fee boo nekkee magum naa fekk moo xam ne nii ngeen baal ma ci wax bi mm-hmm. waaye boo tey bu tey nga wax wéet ak kii wax li wéet ak kële wax le mm-hmm. wéet ak kële wax le boo léegi xale parce que yaa yaa wane sa bopp xam ne fii mm-hmm. wanoo benn personnalité parce que li ngay wax ak Ousseyn bokkul li ngay wax ak Abdou Khadir li loolu moo loolu moo yàq écrit ak école am na solo père ma nekk dañuy dem ba moo moomee ko benn mbër. waaw euh, mel ni ki nga xamante ni moo sosoon écurie bi. Mm-hmm. moom écurie bi euh, moom importance am ci yeneen mbër yi amul solo. Mm-hmm. boo xoolee école de lutte Balla Gaye. Mm-hmm. boo fay tudd Balla Gaye ngay tudd numéro un. ngay dem ba da jàpp ni Balla Balla Gaye deux sax. moom moom écurie ba. Euh, ñaareel bi nga xool ku mel ni Rock Énergie. avant Modou Lo di ñëw tey bari woon na ay champion yoo xam ne nga fa woon ay Zosa nga fa woon. Xaadim Gajaga Talla mm-hmm. Gaynde Matérialise ak mm-hmm. yeneen champion yoo mm-hmm. xamante ne ñu ngi woon biir Rock Énergie mais léegi boo tuddee Rock Énergie rek sa xel day dem ci Modou Lo euh, yeneen écurie yeneen écurie Fass boo ko tuddee sa xel dem ci Gris Bordeaux yeneen xale yi nekk ci écurie bi nga xamante ne fi mu toll ni mënuñoo toll ci yenn niveau yi écurie bi ñoom ban taxawaay lañu war a mun a taxaw ci taxawaay boobu parce que xale yooyu dañoo mel ni li wolof naan mbaam gàtt na loolu waaye ci jur gi la bokk xale yi daa mel ni dañ leen xaw a tuutal ci bi wala dañ leen xaw a doyal waaw mais xam nga tuutal boobu. Mm. am euh, gisee ma ko tuutal. Mm. xam nga dañu maanaam ñaar ñoo xam dañuy bay tool. Mm. bu ñuy bay tool bi dañuy seet ku ci gën a jàmba rek. loolu bu ñu loo bay yaa moom. dëgg la bu ñu nee loo bay yaa ko moom nag. yow wen kenn war laa pële. déedéet mooy nga entraîné fas jom. xam ne yow mii am nga talent bi. am nga mbër gi mu ngi ci yaw talent baa ngi ci yaw nga jox ko ak xam nag. la ci des nag borom bee ko yor. keneen yor ko yàllaa ko yor. dégg nga parce que yaa ngi jox ak xam yaa ngi tëdd di yeewu heure di entraîner di sàkku sa xam-xam mu yokk mhm. dégg nga muy benn ñaareel ba ñi nga àndal tamit yàgg dund ak ñoom ci ngor ak kóllëre dégg nga li ma la mhm. loolu soo ko defee mën ngaa sori waaye bu fekkee ne yow mi kat yaa ngi ci foo ci làmb waaye xam nga ne doo mbër mhm. parce que sa taay mayu la ko sa condition maanaam amuloo benn moyen bu la de war a def champion teel la wuti métier teel la wuti métier parce que da ngay da gunge rek hmm. maanaam da ngay gunge ñooñu nag dafa bari nag ñu ne ci écrit yi nga xam ne du ñuy mbër dañuy gunge rek parce que ñooñu tey am na ñu am fitu ñoo ne leen ah yow ka jiir yi hmm. vraiment bëgg nga ci làmb hmm. boo sañoon doon moo Lo wala Balla Gaye waaye loolu moom euh, mënu la nekk est-ce que doo dem wuti métier euh, taxaw ci taxawaay bi nga ci war a taxaw est que loolu dina am ñu ñu ko ñemee wax ñenn xale yi ne ci écrit waaw xëy na du ma ne ñëpp ko def. Hmm. waaye man de dinaa ko def man léeg-léeg nit ñëw du ma la wax ne la lii waaye dama ne la bëgg nga bëre yaa ngi koy foyee ma ne man amutal loo ko booleel. Hmm. boobu donc ku koy jujju. waaw damay bokkam damay man parce que ki ñëw ci man ñaar lu jëpp. Hmm. da ngay ànd ak wala nga sa papa wala nga ànd sa grand frère. ne ma kii de toj na mbapat place sangam toj na nangam toj na nii wax wax ma ne waaw waaw baax na de. ma ne ko bu fekkee xool naa taay bi ko ma ne ko ah. waaw waaye lii daal baax na de mu ngi góorgóorlu ne comme mu ngi góorgóorlu toj na ba pare waaye làmb bëri arène ak bëri mbappat du benn. Mhm. léegi nag kii ma ne ko na wuti métier. boole koog bëreem bëri bi lu mu ci force am la bu yàlla defee sa doom sa waaye daal na wut métier daal. Mhm. ma ne ma ne ko ndax ba yaa ngi jàng boo jàngee may la góorgóorlu bu fekkee jànguloo may la góorgóorlu sa métier wax junj la. Mhm. waaw am na ci ba dama naa ne jàngi leen métier parce que bëri du métier wut leen lu ngeen ko booleel. am nañ ci bëri ñoo xam ne tey jii am nañu ay teraanga dañuy dajeeg man di ma félicité ma père yaa tax ma am métier. parce que ba nga demee bëri du métier damaa dellu ginnaaw wuti métier ba léegi nangam laa hmm. waaye loolu nag nit ki day teel a xam boppam parce que man ngaa xam loo xam ne di nga ko toj wala doo ko toj hmm. Balla Gaye bi bi ko lees gis naa sa doom boo xam ne boo ko toppatoo loo ñàkkoon ci làmb di ko lekkaat hmm. booba taa xam ne la ma waxoon dara dañ ci defe naa tey loolu yàlla yàlla barke la sama kàddu Modou Lo mii tey di ma dégg ñu may dégg ba may wax papaam naa ko sa doom bi moo gañe lii démb ci dimanche bi ci mbaand bi la mu gañe ba ma yóbbul ko ma ne ko góor a sa doom ji boo amee si ñaan des na ko dégg mu hmm. ne ma doom ji ma gërëm la hmm. man ci jën yi laay liggéey trois heures laa koy yow ma jàppale ba sept heures hmm. ma ne ko ah yaakaar naa yàlla parce que talent bi soo xoolee yow mi entraîneur bi te xam bir bi di nga xam ne kii bu góorgóor dina nekki nangam waaye di xam ne kii ah su góorgóorlu woon mu doon champion dana jafe parce que amul fit wi fit wi sax mën naa ñëw après waaye amul bëre bi amul dégg amul maanaam daal da ngay gis ne kii am na lu manqué loo pour doon mbër mais per li ma li ma li ma jaaxal. Mm. mooy père Birahim ni mu mel ci macha allah. Mm. Euh, ci xam-xamu làmb. Mm. ni mu mel ci làmb lan moo tax per Birahim Ndiaye ba léegi fi mu toll nii bu nekk am na ay champion yoo xam ne ñu ngi fayee ko quarante million quatre vingt millions cent millions. père Birahim ni mu mel ci làmb ba léegi écrit mënul am sax mbër muy fayee ko vingt millions. mbër muy am dix millions sax mosuma ko am di dégg nga xam nga lu ko waral. am na ci loo xam ne nii bu ma nee yàlla la affaire mi miir bi day sës. Hmm. tontu bi day gàtt. day parce que mbiru yàlla mu loo ko dugal rek tontu ba booy waxtaan ak sa xarit. Hmm. su ngeen cee dee mbiru yàlla rek wax waxtaan ba day arrêté. jërëjëf waxtaan ba tëju na. Hmm. parce que benn euh, da yor nit fekk am nga yor ko ci ngoro ak kóllëre fekk amul kóllëre ay war a laal su demee ba commencé gis buntu bi rek daal di ànd ak ki bokkam dal na ma. am na ñoo xam ne tudd seen tur. ay bari ñoo xam ne jaar sama loxo na ñu ñëwee woon. ñii naan damaa seey si ñii naan papa damaa dëkk si ñii naan ñoo ñëpp ba taraanga feeñoo dañoo war waaye nag ñaana lu ma leen dara hmm. dama leen bàyyi ñu def rek xam naa ne alxuraan wax nañu ne ku war man yàlla ju ànduma aji war ji moo tax nit ku war dama bàyyi war rek. wolof na ku ku ku war ren ba waaw ren ba déwén ren ba ko ji moo tax alxuraan ko jëkk wax nag alxuraan na wax inna allah la yahdi kaydal xaa'iniin alxuraan borom bee ñu ko wax kon tey hmm. nitu kat hmm. saa yi waree si daan koy mu jëm loolu tax amaguma chance am champion parce que man du la yor ci bëri rek dama la yor ci dëggu doo fen doo wor doo lekkul lew doo jëli fi jàmm doo te nangoo liggéey. Mhm. ba nañ ko ba ñoom si boppam sax koo wax ma ne la père fu ñu dégg dañ may entraîné fii père maa entraîné tey terrain ñun ñu wutiwaat feneen fu ñu entraîné parce que nee nañu père ku dem moom day rayee père day rayee de ku fa dem dee de père day rayee mhm. di ma daw maa ngi la yéen a ma daw waaye yéen a ngi daw seen musiba mhm. nee la yéen sama toog waxtaan ak yéen ci cinq rek loolu rek njëriñ la yee rek yéen ci àddina cinq mille rek njariñ la. wallaahi nit wax na ko ba États-Unis. ah mu ko bokk. Mm, ne ma su ma nekkoon mbër. waaw du ma jug ci loxoy Père Birahim Ndiaye. parce que xam-xam ko yàlla may. macha allah dinaa ñëw bokk ak looloo tax nag am na ci ñu bari nag déggal ma ku ma ci déggaloon da dem mm. si yoon waaye ku ma ci déggalul dangay ngay na da ngay taxaw parce que xam naa bunt bi xam naa fi ma lay jàlloo te sa njariñ la te njariñ loolu bu soobee yàlla boo ko toppee say waajur bi ñu mer dañu kontaan te yow tam di nga gis sa njariñ waaye nangoo ko parce que liggéey mënoo cee jëriñu te liggéeyoo ñii fi nekk tey ay champion ñu doon tudd te da xëyit ne law rek mayu leen ko hmm. ñu ngi rey seen bopp doon champion moo tax yàlla wàllu si leen ti fekk loolu hmm. arab yi dañ naan man jadda wajara ku sonn ñaq ku sox hmm. ku ñaq jëriñu sonn soo ko defee rek yàlla gestu la mais sonn bu ko jëriñu amul fenn jëli ndeysaan la sa papa doon wax boo ne damaa sonn mu ne la ko sonn yàlla na nga jariñu <laughs> ndeysaan moo tax àdduna rek hmm. moo moo moo am solo waaye àdduna rek moo amul solo hmm. euh, nit ki lépp lu muy séentu rek wala lépp lu mu bëgg rek na ci hmm. jëmbat fulla surtout jëmbat ci fayda jëmbat ci bëgg Ouzin lan nga lan nga lan nga war a sànni peer euh, fi mu fi mu ñëw mu tëjee rek laa ñëwee xam nga ñu ci bari dañoo bëgg làmb maanaam bëgg ci bëgg nañ làmb à ah, grâce à ñu leen mag seen papa yi wala mm-hmm. seen mag yi ay Manga 2 mm-hmm. ay ñoom Tyson ñoom moo faram mm-hmm. ñooñu buñ taxee ñu bëgg làmb te ñooñu làmb fayu leen bu yàlla dogalee ñoom ñu ci làmb te làmb fay leen moo tax ma ne ñoom ñi nga xamante ni dañ leen yor seen écurie yi dañoo war a yëkkati ak di leen combat di leen neexal parce que defe naa ne mag su la yoree di la tàggat di la xelal comme ni ñu koy waxee temps bi nga def ci écurie ba comme ni ñu waxee di la di la di la yar ci jikko di la ci xalaat bi la entraîné di la wax del taxawee ni day jotee nii mhm. booku rafet na nga yëkkit la neexalee mhm. ko ko xam ne ko jënd ci ataaya mhm. dooy day gën a barkeel sa liggéey gën laa jëmale kanam bu ñu fàtte di jël ñi leen mag di leen ci waaye bu ñu ne ah sama kër laa yóbbu sama kër laa nangam nañu neexal ñi leen entraîné salle musculation boo ko demee da ngay fay ah, boo demee ki lay bosu da ngay fay kon nañu ñu nga xam te ne li ñuy def ci ñoom fa ñuy fayee ëppul fuuf que ñu la ñuy def ci ñoom ki la wax taxawee nii entraîné nii flexionné nii at avant nii kooku la muy def ci yow ka lay ka ngay fay def ko ci yow. des fois nga gis mbër moo xam ne day daan sax du tudd euh, entraîneur bi nga xam ne boo yow cinq heures du di daj coola day jékki-jékki maa ngi sant kàggu ma un million maa ngi sant Adama may na ma trois millions bas otoom laa dugg bi may ñëw ceeb bi diw mooma di te alors que yow li tax nga mun a sant ñooñu ñëpp ki ko def ci yow tànk bi ngay teg nii ngay entraîner. Mm-hmm. kooku tey yaakaar naa ne moom mooy. dalaa gëmloo sa bopp njëkk ki nga mm-hmm. xamante moom nga war a sant. dalaa mm-hmm. waaw parce que xam nga moo tax loolu ma ne la euh, toujours dama lay wax dinaa la wax benn wax boo xam nga ko jàpp. yéen mooy mbër mbër tibb bu tàng la lex bi ko njëkkee du ko mujjee mukk. tibb bu tàng la. lex bi ko njëkkee du ko mujjee mukk. waaw xam nga loolu xam nga yooyu wolof lu muy firi. xam nga ko laa wax. déedéet xam nga voilà mooy soo tibbee tey par exemple sax benn lañ la sànku ceeb. Hmm. mu tàng nooy def lu ma indiwaat ko fii. bu tàngee doo koy loo nga diwaat fii. ba keroog muy sedd. loolu mooy mbër dex bi ko tag la tibb bu tàng lex bi ko jëkkee di ko mujjee xam nga lu ko waral. Hmm. parce que mbër moo fi defar tey ba mu baax wax ma ci kenn koo xam ne kii rek que mu débuté loon moom la àndal ba fin ba fin carrière am. ci yéen ay xale ngeen li ngeen fekkee nii. wax ma ne benn mbër boo xam ne bi tey mu amoon ba muy débuté tey jii ba muy débuté bëre di bëre ba di bëre àndi ànd ñoom la ñoom la àndal ba làmbam jeex wax ma ci kenn doo ci li ma jógee mbër yu ko def. Ah, bu amee. su ah. am na bi mu amul dama ne moom moom laa wax maa ngi boo amee. Hmm. it bariwul doo ma ci li ma jógee mbër yu ko def. parce que bi nga amagul dara ñeen ñi la dimbali ba nga amee ñoom nga war a jëkk a fàttaliku. Hmm. mooy li Ousin wax sànq. Hmm. tey mbëru mag mi nga àndal. di la dimbali si sa taatoom di ñaan di yàq ci yow di sonn yow ba nga tekki mm. bala ngaa gestu kenn moom nga war a jëkk gestu waaye bu teraanga ñëwee rek ñeneen ñu ñëw ki lay may cinq mille tey bis boo gisee mus commande dix mille bàyyi nga kooku boo gisee ku la may vingt cinq mille dem nga ca kooku bu la gisee ko cinquante mille fàtte nga kooku noonu ngay dem ba fàtte ñi nga amoon ñëpp mm. dégg nga tey nga fàtte ñi nga xam ne ji ba amul dara ñoo la doon encadré di ànd ak yow di la jàppale ba teraanga ñëw ta ñooñu nag loolu ay war la mm-hmm. gis nga wor yooyu nag yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg day defeen ci yow ñaar ma leen xaw day wax yéen bëri mooy ci leen di war hmm. war baaxul gis nga koo war yàgg yàgg di nga mas a dox bu ngeen guddee fan dina yàgg yàgg dox ba mu yërëm la xaw ngeen teel a dee rek xaw ma dee am ca dee nga yàlla moo xam la mujj hmm. alaaxira yàlla xam hmm. mais fii ci àddina bu ngeen guddandoo fan rek ki la war yàgg yàgg di nga ko yërëm moo tax c'est la ci war moo tax loolu ay war la bi nga mënul dara ki jàppale ba nga taxaw waroo koo fàtte jamais ci àddina loolu nag moo bari ci gone yi léegi léegi koo ci yedd lu baax sax boo ñëwee ma ne paa paa boo bëri waa paa bi def temps na kooku paa paa màgge la kooku temps passé loolu bu doon rek waaw làmb yooyu ak léeg-léeg du benn mm. waaye ngor gi fi amoon moo fi am kóllëre gi fi amoon moo fi am lañ juddoon suñuy bàyyi suñuy maam moo fi am ba nëgëni ngor ak kóllëre du fi jóge mukk ci àddina mm. waaw kon tey jàpp sa ngor jàpp sa kóllëre ka fi nekk booy lu fas jom bëgg li ngay def boole kook nag métier soo demee nag ba teraanga wuy si la ci nag comme ni mu amee ñoom Modou Lo ñoom Balla nga xam ne nag fii fii féete ci lii moo des la ma cee amit mu bi lay bunt nag su ko defee la la nga ci am nag nga nag waaye réaliser ba tamit dinaa benn mbir hmm. boo xam bi maa di ko dénk la sama bopp di ko dénk ñi ñuy seetaan hmm. mooy gis nga nit soo àndee moom teraanga da ngay génn ñamu bët lan mooy ñamu bët waaw kay bien ça xam nga ñamu bët mooy lan hmm. tey ji ñoo ànd tey ji lu wuti ngeen di ma gunge may am ngeen di ma gunge bokk tey jii ma lekk million wala ma lekk ñaari million war naa ci génn seen àq àq écrit bi may kontaagal xale yi nga xam ne ñooy contact bu may tuus ñoo may jàppale soo may fecc ñoo may def ci écrit bi ñoo may jàppale parce que menn mbër rek mën nga mu rëy rëy benn menn Modou wala menn Balla Gaye wala menn euh, euh, Tay Shinger moom rek moom Ama Sène moom rek mu ñëw ngeen bu tuusal boppam mas ngeen ko gis ah waa contact condition bi koy jox condition mën ngaa gis menn mbër mën naa contactal boppam waaw kon ñooñu nga xam ne am nga sensu lekk cent millions sax te ñoom kenn amu ci sensu naan ci eh, am am sa eh, vingt millions wala dix millions. Mhm. waa léegi koppar yi ñëw nga gaf ko di ubbi sa compte dugal ci sa biir banque. loolu yaa ngi def musiba. dëgg la ñi nga xam ne ñooy encadrement bi tous bi ñooy ànd ak yow ñoo lay encadré dégg bu dara doon ñëw rey bu dara doon rey luy rey ñëw ci kër ci écrit bi. Mhm. ci ci jour bi dégg nga du ko doo leen fa bàyyi. parce que ñoo la encadré. ma waaw est nga ne mbër. nekk na si écurie di ànd ak may ànd ak ji bi ñuy mm-hmm. ànd di ànd ànd yàgg di rafet mm-hmm. yàlla di ko wësagal te du ma ci gis sama bopp day ma ma damay bëgg ji bi kaa la cinq cent mille sotti ma ko nangam te moom cinq mille francs jël cinq cent mille yi ñu ne dafa war te ba tey d'accord maa yow loolu sax ba tey sax la mm-hmm. man bu may ànd ak yow damay ànd ak yow ci ngor ci ngor su ma xoolee xam ne yow mi ko sañ sa bopp rek nga ma sa bopp rek nga gis mm. ma bàyyi la waaye jox ma gàllaaj mm. naa ma defal ko pour ma sa cinq cent mille du ma ko def mm. parce que boo ko defee sax ay war nga def jaru ko da koy bàyyi yàlla rek wuti sa bopp xam ne moom rek nekk fi keneen ne fi mën ngaa jógee foofu yàlla jox la benn xéewal bopp boobu sax loolu bu ko sax bu ko doo ko sax xalaat Euh, ki ngay jàppale. waaw ah. tey Pierre am na mbër yoo xam ne ñu ngi sa écurie. Mhm. Euh, yaa ngi leen di jàppale li nga leen di jàppale mooy da ngaa bëgg làmb. Mhm. Euh, bëgg nga xam-xam bi nga xamante ne suñu borom may na la ko nga def ko ci ñoom. Mhm. ñoom nag bu ñu demee ba leneen wuyu si leen. loolu yàlla mbirub suñu borom la. mais yow loolu nga leen yéenoon parce que ci loolu ngay tàggat ci ñoom. ñoom nag bu ñu demee ba nga xamante ni dem nañ ba ci moment bi am nañ. dëgërwaay mm. jàpp nañ mën nañ lu ne mm. ñu ne gesuñu per loolu nag seen mbiru bopp la mm-hmm. parce que dafay am loo xamante ni tey père euh, gis nga baax wala tabe mm. ci yor ay millions dëgg la nit mën naa ñaar fukk nga xam-xam kii tabe na wala ah, dëgg ci biir xale yi nga yor des fois di nga ci gis xale boo xamante ni di nga xam ne kii. dëgg la bu amee ku tabe lay doon. dëgg la dëgg la gis nga loolu nga wax noonu ji. dama koy dëggalal man gis naa ci xale yu ma yor yoo xam ne yii. tey jii waxuma dañ may gëj a gis sax woo père na naa mën naa la gëj naa la dégg naa hmm. de sans portable dama ko hmm. la réer mën la hmm. mais gis nga dama leen dafa am ñoo xam ne ñii da ngay xam ne ñii amaguñ waaye bis bu la loolu li nga wax nii moom laa lay dëggal am na ci ñoo xam ne ñii da ngay xam ne ñii amaguñu waaye bis bu ñu amee dañ taxaw ñooñu nit ñu baax lañu te yàlla day fay yéene yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi wax ne innamal a'malu binniyaati wa innamal likulli imrin nawa mooy dëgg mm-hmm. nee na bu nekk la nga yéene rek la la yàlla jox ku nekk moo tax boo yéene yéene lu baax rek mm-hmm. parce que lu baax loolu mooy joor di ko jaan màtt la ëgg si ci yow loolu nga yéene mooy del siwaat ci yow mm-hmm. dégg li ma la man ànd na maag mbër mu mag muy bëreeg benn ko ñu xuloo ba tàggoo maag moom muy bëreeg benn mbër mbër ba woo ma laaj ma ne ma dama bëggoon nga wax ma turu ndey ak bàyyi ma ne ko ma ko def mukk ci àddina ma ne ko xuloo nañu àndatuñu waaye tey yéenewu ko tey ma di ko jox dina pour nga xeex daan ko demal tànta ji rek loo am muy sa sens su ma ko waxul yàlla bu ma gisee ak yonent bi ma xiyaam lii laa ko tontee ma ne ko demal soo demee loo am muy sa mm-hmm. waaw waaye rek dem naan la naa la wax turu ndeyam bu baayam du ma ko def mukk ci àdduna mm-hmm. waaw te kooku boobu àndatuñu te sama xel la woon ñu xuloo tàggoo àndaat mm-hmm. dégg li ma wax mais gis nga àddina li nga liggéey rek moom la la yàllay fay waaw kon am leen xol bu baax yéen ci wax tey gestu ñu ngeen di àndal mbër bu la yàlla joxee wërsëg ngay lekk million ci sa ginnaaw mënuñ ci am dara nañ ci lekk seen ñamu bët benn million wala deux millions ñi nga yéene am séddoo leen def leen sa poos ñi amul ñu luyee dem fay seen néeg ña nga xam ne ñu seen añ problème seen reer problème ku ci mën a denc sa benn cent mille boo xam ne weeru chaque jour de ko ci yéen denc ko ci benn nga xam ne soo jógee entraînement boo amul loo reer loo am ca loo naa ne waaye lekk lépp jiiri naa la wax benn wax Ouzin ay xale ngeen mais gis nga ku lekk lépp fot àddina su ñu di woon genn ginaar fii tefoon ko wala ñaari ginaar teg ko fii kenn ki daal ne ki rek man rek maay lekk lépp soo ko lekkee lépp du la jëriñ ndax lépp biir bu daw leen di feebar leen di parce que ginaar gi da nga ci am wàll kii am ci wàll kii ñëpp ñun ñëpp ñu am ci wàll kon kenn ku ne leen lekk wàllam waaye boo bëggee lekk lépp fort hmm. ku bëgg lekk lépp rek fort maa la wax te loolu mooy dal mbër ah. mbër da ngeen moytu li ngeen am lépp ngeen lekkal ko seen bopp ak seen i bokk bi seen compte def ci la ngeen ci am yëpp ñu ànd ak yéen encadré di sonn ci yéen guddeeg bëccëg am bu ngeen guddee mu guddi bu ngeen amee defet du ñu lekk du ñu naan contact ñoo yéen bëree géegu leen lépp ñoo yéen ba pare ngeen ñu xaar ba lekk ci leen c'est dangereux. jërëjëf Père Birahim Ndiaye c'est dangereux bàyyi leen ci xel Père Birahim Ndiaye hmm. mi nga xamante ni seen papa la moo leen di saa su ne di leen eh, la hmm. eh, di leen di leen soññaat ci li nga hmm. xamante ni mooy fulla ak fayda ak ak ngor parce que ngor moom vraiment dañ koy wax ci wolof yi dañ naan ngor soriwut waaye gore tamit soriwul mm. euh, boo buggee dem ngor gis nga paas bi yomb na ba dee boo buggee dem gore tamit gis nga maanaam li mu demee ñaar yëpp ñu ngi fi père ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax waa jërëjëf di kontaan ci waxtaan wi ma ak yow cousin mm. euh, ñun ñëpp jàngetu làmb la parce que euh, man mbëru mag la mm. bëri naa ci waaye du tee maa xam lépp taxul ne maa xam lépp am ngeen ci xam-xam damay jël ci yéen ngeen jël ci man ma jël ci ñeneen ñëpp ñun ñëpp ñu bokk dajale teg ci panel bi ñëpp xëy nit jariñu ci mm-hmm. ku ci dégg loo xam ne tamit lu ñuy yokk la xam ngeen numéro site bi xam ngeen site bi nangam mm-hmm. naa ngeen ngeen jox ñu thème bu ngeen bëgg ñu waxtaanee tamit ngeen jox ñu ko ñu waxtaan ci suñu xalaat ubbil nañ leen bunt bi thème bu nga xam ne bi xalaat ngeen ne suñ ko waxee ci làmb ji ak yooyu luy jëriñ mbër la hmm. wala luy yàqal mbër la bu ngeen ñu ko waxee ñun tamit ñu jéem ci am suñu xalaat incha allah yaa ngi fi a ngi fi Abdou Khadir ngi fi ñun ñëpp ñu toog waxtaan ci incha allah jërë ngeen jëf maa ngi leen tàggu di leen ñaanal gudd fan ak wér hmm. ak sutura ak teraanga bu mu suñu mujj daje amiin ah, ko sant moom mi tamit hmm. ndax xam naa ne waxtaan ak moom ñu ñëw ci bénéficié waaye moom amul dara luñ ci gagné di kontaan ci moom bu baax a baax di wax gars yi ne leen kontaan nañ ci yéen bu leen nag di abonné Wassare Lamb làmb rek moo ñu intéressé làmb doomu moo ñu ñor lépp luy doxal làmb lu nekk ci la bëgg di dox di la bàyyi nga doxal ba beneen yoon incha allah. jërëjëf di sant Kaggu le grand cadreur Adama le cadre des cadreurs ma leen di jaajëfalaat bu baax a baax a baax ba léegi incha allah ci beneen xew-xew làmb jërë ngeen jëf. ndaanaan laa ñaari yoon bor boo nekkoon ci boor ak ci yëley boor bàyyi fas njaay nu roowu mag ñoom cuuna rëy ma juub waa a roy ma saay maa ko baaxi jeeg a ma yor si jeeg